li ci yéenekaay yi ci yéen kaay yi jox leen ma xel yi te ngeen déglu maag noppi garme yi ma daal di koy door ak yéenekaay bi yéenekaay yëpp daal di xëyanoo musiba mabba kumba mi nga xam si ne am na ca kuppentu yéenekaay bi di xamal ne way defkatu ñaawteef yi amal ak jongu mbir nag daal wëlbatiku ci ki nga xam si ne moo di commanda Sané moom mi nga xam ne moo jiitu ab fetal lañ ko sox mu ñàkk bakkanam l'observateur di xamal ne maa leen di leeralal mbir yi a topp bañ na ko Aïcha dafa daal takk jóg daal daw foofa yëpp waaye tamit bàyyiwu leen noonu ndax da leen a ñi nga xam ne ñoo di way takk der yi ca lañ daal di xam ne ñoo di way def kati ñaaw def yooyu soxantay bal ya daal di tàmbali daal di mel ne sabaruk fetal ca la commanda Sané di ñu xamal ne ca loolu ca lañ daal di àll bi daal di fas li nga xam ne moo leen fa lépp loo xam ne jëm na ci kaaraange réew ma ñaawlu mbir mu ni mel tey xam ne ne yooyee defkati ñaawteef dinañ leen topp ba teg leen loxo yéenekaay di libération di ñu xamal ne ki nga xam ne moo di commandant Sané ak njàmbar dëgg la wane jamono jojee si di ko quotidien moom di ñu xamal ne pentu laqatu lool ak i way takki der lépp dañ koy contrôler ba ci askan wa fa nekk sax ñi ngi leen di xamal ne képp ko xam ne ma nañ leen loxo yéene bi di ñu xamal ne di ñu xamal ne ay société yi nekk ca Angola la ñoom ñooñee addu ca mbir ma nag nee nañ balaa yàgg dinañu ko topp ba mu leer leneen lu ñu war a leeral kay mooy mbirum Guy Marius Sagna yéene bi di 24 heures ñi ngi ngir ñi teggi ko loxo ni mu gën a gaawe Walfadjri yéene kaay di ñu coow lu rëy ci parrainage bi jamono ji ay fan rek dox ci suñu diggante moo di tabaski enquête yéeni kaay moom daal di def enquête jëmale ko ci li nga bi di ñu ne nawetu ren bi dafa yéex lool boo moytuwut xar am ñaar fukki at ak ñaar ren ji am befem ndaw tardé nee na nag bëgg-bëgg mooy balaa yàgg am li nga xam ne moo di mbat ki nga xam ne moo di ëmm seen ak Modou Lo mi nga xam ne suba jàmm lañ war a jàgmaarloo yéeni kaay bi di suñu lamb di ñu xamal ne mbir yi daal dina tàng jër xaj ba suba jàmm